salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seetaan tey ñu ñëw ak yéen ci beneen numéro découverte tey ñëw seet si aboukane président adam fii ci mbaaw ci berger galoya ñu ñëw seet si yaru xaru laadum yi ñuy def euh, pour xam laadum nataka lañ koy toppatoowee ak gis nañ ni léegi yi ci dugg bari nañ ak lan mooy secret bi lan moo nekk ci biir ñu dugg xool abou waxtaan ak moom mu gën ñoo expliquer ci laadum lay nuyu di la ziar. di remercier bergerie ñu la président Adam euh, président également FENAFO Fédération nationale des acteurs de la filière ovine. Mhm. Euh, di aussi si bergerie Galoya. di am di leen bergerie Galoya.

def top to wax yëpp. ci la jappé virus bi. Ah. yalla def nak euh, bima démé ba commencé liggéey am as tuut li ma am ma consacré ko si xari voilà di non la def non la def rek ba en 99 euh, mané, bon comme légui, je déploie beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent si si xar yi. Mhm. naa ko d'une manière professionnelle euh, en créant la bergerie euh, Galoya. ma ñëw érigé ko fii si Sicap Mbao en 99. Euh, def ko d'une manière formelle euh, et professionnelle hein euh mu nek bergerie Galoya de baw depuis bobu ba ñu ngi fii daal. sa parcours bobu vraiment machallah allah. tay par exemple buñ déme ba gis ni fi tay ni mel machallah ñu gis ni xar condition yi mu nek tay est xar mosuñoo xalat ne dina dem ba am kër def ni consacrer ko à l'élevage. surtout race ladum tay race ladum boñ doon wax tay fa la jógee ak lan mo la ci gëna duggal dugal. waaw race euh lu ma si euh, dugal mooy soo nekkee éleveur da ngay bugg am xar bu gën a rëy ah bu gën a rafet donc comme raadum si raas yi fi am yëpp euh, moo si gën a rëy moo si gën a rafet mhm. euh, moo tax ma orienté wu foofu maintenant par rapport ak origine laadum laadum comme ni ngeen ko xamee bon Sénégal ñetti race officielle moo fi am officiellement ba tey jii may wax ak yéen muy d'abord le pël-pël race pël-pël bi Moi également la race euh, Djalonke, Binandama, euh, et la race Touaber. Touaber, euh, qui, si Touaber, la Ladoum Djugé. Parce qu'au départ, euh, comme Touaber, mon gonne réussi si si si ñetti race yoyu té danaka mom lañ doon doon gis gëna gis si si côté Dakar bi un peu au nord parce que aussi euh, daan na jóge aussi Mauritanie, Mauritanie euh, donc euh, les premiers éleveurs mun le précurseur de ça, c'est moom moo wax waxu euh, euh, ay travail de sélection au début c'était un travail de sélection Nous euh, avons jël trois rafet croiser les seen et mettre leen dans de bonnes conditions. donc c'était tout à fait normal que trois biir nous ñu les seen biir mettre leen dans de meilleures conditions qu'ils soient meilleurs que les autres. Euh, donc tu l'as commencé wax euh moom moo ko fi ñëk a wax après y a eu amna ay euh, talibem ay euh, disciples mhm. yu melni ay Matar Mbeng ñu melni ay Vieux Massiga ñom Villiers mhm. pour ne citer que cela. ceux-là bon bari nañu nak ah, ñu bal mom mënu ma citer ñep mais pour ne citer que ceux-là mhm. ñooñu topp nañu ci tànk yoyu commencé ñoom di def la même chose ce travail de sélection maintenant au début c'était un travail de sélection dañ doon jël qui, euh, les meilleurs sélectionnés entre eux. Après, euh, au début des années 90, euh, à la fin des, années 90, ils ont commencé à faire un travail d'amélioration. Amélioration en introduisant d'autres races, telles que le bali-bali. Si je bali balibali, azawat, ça n'existe pas. Dit ah. mais azawat, ça n'existe pas. Ah en fait, c'est des bali mhm. région de azawat, l'on yooyu lañ Azawad mais en Mali Niger. voilà mais euh, Azawad en tant que tel. Euh, ça n'existe pas peut-être peut-être on aura l'occasion d'y revenir. d'accord mais lu am mooy bali bali. bali bali nak, xeet yi bëri na am na yoo xam euh, frontière Niger ak Mali lay nekk ñom yu rëy la woon yoy lañ doon wax Azawati. Amna yo xamni, euh, ñu ngi si biir Mali bali bali yu rëy la amna yo xamni xam ni aussi ci ay Tchadien lañ leen di wax tiad lañuy jugé ah yooyu is day ay ay ay kii yu trapilo yu am doole yu am euh, bopp yu damm ak genn yu gudd fanon bu bu rëy ak yooyu maintenant à côté de yooyu tamit yaa métissé nañu bali bali bi ak tchadien bi mhm. ñu am lu ñu naan balami balami dafa jóge si bali bali ak tchadien ah. donc yooyu yëpp da daan ñëw fii ah euh, Thiès donc ñëpp xam nañ ni euh, comme ni ñu wax avec le phénomène benn dëkk ñaari gaar euh, maliens yi dañ fa doon wàccee bali bali yu bëri ak yooyu donc façon xar bu nekk wàcc na fa donc euh, bali bali euh, bi dina fa wàcc cadien bi dina fa wàcc beneen xeetu bali bali bi ñu naan azawak tamit balami bi tamit dina fa wàcc ah donc yooyu nag am à un moment donné am na si ay éleveurs nga xam ne jël nañ yooyu introduire ko si laadum yi ah ci la ci la laadum bi nag bi nga xam ni à 100 au départ trois ber sélectionneur la woon. Mhm. ci la laadum boobu commencé di transformé wu. ci la bopp yi commencer damm. ci la ñu commencé am fano. foofu la ñu travail voilà ci la ñu commencé am fano ci la ñu amay commencé am genn yu gudd. genn yu dijj ah donc parce que soo xoolee trois ber trois ber euh, bopp bi dafa xaw a ah toobeer eh, amul geen yu gudd yu dijj yooyu toobeer eh, donc bop bi damul hmm. toobeer amul fano donc eh, lolu nak avec l'introduction du balibali ci le la toobeer ci le laadum bi commencé am ay bopp yu dam am ay fano am ay geen yu dijj yu gudd ah loo xam ay critères la boo xam c'est des critères de choix ah donc noonu la laadum bi évolué au début des années 2000 euh, nous avons docteur Diallo on s'est dit que bon ok euh, c'est quoi c'est c'est un toit vert amélioré avec quoi avec le bali bali mm-hmm. mais ça a été fait d'une manière un peu désordonnée et nous avons remonté à historique bu donc nous on a qu'à le faire mais d'une manière beaucoup plus professionnelle des bali parce qu'on avait fini de faire le constat ah bi nga que euh, euh, euh, surtout femelles yi yaatuwuñu amuñu doole non yep, ah te dañoo njooloon nag mais dañoo svelte ah mhm. maintenant pour augmenter le volume nous avons introduit dañu koy introduire non seulement pour augmenter le volume mais peut-être pour introduire pour augmenter aussi ossature maintenant tout en rejetant nous ñu soxlawul si balai parce que sénégalais bi aussi donc on a fait ce travail là pendant presque huit ans euh, en, croisant des balibali et, des ladoum hein, pour euh, tout temps nous orientant vers le ladoum hein. parce que si on demi 2100, demi ladoum pour avoir trois quarts trois quarts on ñu encore pur ladoum pour am euh, sept huitième ainsi de suite, nous sommes 15e, 33, 34e, ainsi de suite. Bon, nous sommes presque euh, plus de 95% de l'ADUM. ah tuuti eh, bali bali ba pare dañuy am laadum bu ñu bëgg mhm. mooy laadum bu rëy te rafet boo xam ni bi dam na am fano gen bi dijj na gudd na ah donc eh, travail boobu moo aboutir peut être ak ah, yenn ligne yu yu mel ni Jeyna ba Aïcha mhm. ba tey jii ah, ah, fi fu may waxee yéen yu mel Aldibo le champion du Sénégal wala euh, Batonier wala magistrat yooyu daal. Il y a des champions qui champion mhm. est-ce que ici 100 bi parce que j'avais deux voies. première mhm. voie développer yi pure, pure, dure, sans racisme. La bali voie métissage. donc première voie qui la, la race pure dure, démarré avec Kabila, ensuite euh, Senghor, qui euh, l'a aboutir euh, si si ay euh, femelles yu mel ni ay à la aboutir ay femelles Grand Royal, Grande Royale ci la aboutir ay femelles Fatima Big Djur Bougan, hein, ainsi de suite ci la aboutir aussi si le mythique Boy Serrer. Boy Serrer si lignée le la hein. Al la Algor aussi si lignée boobu la entre temps euh, en même temps lignée euh, métissage bi bobu dama ko def métissage ci ci le euh, jéey aboutir parce que li bobu dama ko ko commencé mais ce n'est que 6 ans après la déclaré officiellement que légui amna la mais avant ça pendant les 6 ans là lu mu am day doon nuroo la laaduma ah, mais damay nan toujours métis la am hein mais quand ma ba génnee jéey ci l'année maintenant am na laadum parce que critères yi ñu soxla si laadum yëpp mu ngi si moom donc euh, lignée boobu ci la génnaa génnaa ay après su ñu waxee Aïcha nag wax nañu magistrat wax na ñu euh, Gelawaar mm. euh, wax nañu Ado ah euh, ku wax yooyu tamit di nga tey jii euh, ligne boobu même chose euh, parce que yooyu tamit si maire bi la ñu jógee ku wax yooyu tamit tey di nga wax. ay ay grand ran mhm. ah, donc di nga wax ay maxusey di nga wax ay ba bâtonnier. ah donc ñoo ñëpp si si si loolu si loolu la ñu jógee daal. d'accord mel ni fii tamit Sénégal aussi comme yéen ni ngeen di def réseau yu mag yi xar yi da ngeen tuddee ay tur. Mhm.

soit identifier par un numérotage, comme tu oui. Bidef. Peut-être que c'est à cause du nombre, parce que nous avons 1000 têtes, 2000 têtes, donc vous êtes tous, vous êtes tous. Mais par contre, nous, euh, nous avons dit, si peut-être tu 100 têtes ou le maximum 200 têtes, bon, la majorité, ça, hein, dépasse peut-être 20 têtes, hein, compte tenu du fait que nous sommes familiers, nous sommes familiers, nous sommes familiers, nous sommes des nous

té su ko parce que man maa koy jox tout su ma jox du du ko faté mm. ah, hein même éleveur yi nga xamni ne sax bokkuñu ci gétt bi amuñu fi dara sax xam nañ tur yi ah donc pour dire rek euh, euh, lool dafa am solo donc tur yi dafa am solo lool mm. euh parce que tay ji soy jaay nit wala ngay présenter xar da ngay présenter euh, ay maamam pour mettre en exergue son potentiel génétique mm-hmm. donc so waxé so koy pour mettre en exergue son potentiel génétique il faut nga citer papam il faut nga citer maamam donc il faut soit tour y sinon il numéro rek ah, donc euh, c'est tout c'est important d'accord mais nous sommes aussi actuellement très prisé mm-hmm. euh, actuellement au Sénégal mm-hmm. qu'est-ce que ça vous fait il nga xam précurseur euh, bon et puis nous neex la ah suñu ba nous, ah, investir c'est la donc njëkk ba sax dañ doon par c'est la passion ñi ti dañ doon bëgg rek dugg si mais les ñi si dañ du bëgg a rek mais dañ si bëgg investir parce que ils se disent que c'est un créneau porteur ah donc lolo l'union ñuy rafetlu la te loolu dañ siy sant yàlla bu baax parce que euh, au moins suñu liggéey mën nañu wax suñu liggéey euh, la ñu récompenser ah parce que bu njëkk ba soo doon def laadum dañuy voilà bon c'est des sujets de luxe lañ doon wax. wala ñu des éleveurs du dimanche. Hein? mais maintenant euh, macha euh, ku def laadum de les respecter parce que on sait que ñun dañuy liggéey parce que on produit de la semence. le laadum c'est pas un animal de compagnie. mun nga ko utiliser un animal de compagnie parce que ñun xar yi dañ ko mais le laadum c'est de la semence. parce que tey jii euh, mun nga ñëw si benn gétt nga laajte benn xar ñu ne voilà bi mun naa la ko jaay nga dem lajat benen bu ko gëna ci âge mu ne la bi ma 2 millions de dollars. la ko ah, nga dem lajat mu ne la 10 millions donc ça veut dire que ay catégories différentes la catégories différentes bobu c'est suivant les critères c'est suivant d'abord la valeur génétique suivant les mensurations Donc c'est donc si loolu lay jouer maintenant si suñu catégoriser nak ça nous permettra de savoir xar bu nek mhm. ah si catégorie la bokk ah maintenant dina am catégorie bi nga xamni euh, vraiment c'est pour la sélection pure dure ah, moi, vraiment la catégorie première c'est pour peut-être euh, di di semences sélectionner pour les éleveurs mhm. euh, de la Dans une catégorie B il y aura une catégorie peut-être intermédiaire mais nga déjà première catégorie bi mhm. mais y aura une troisième catégorie bi euh, c'est la grande masse as catégorie boobu moo parce que as dit, euh, so amé deux cent mun nga donc ça veut dire que catégorie maintenant cette dernière catégorie là qui constitue plus de 70% du cheptel mais cette catégorie là dañu euh, plus tard orienter vers la boucherie ah. en ce moment là y a des y a des lignées yi nga ah, nous c'est des lignes qui sont très fortes, mm-hmm. en ossature et tout ça de la viande mais accentuons le foofu ah de telle sorte que euh, bergerie nous ñu fexe ah ba qu'il soit compétitif compétitif mooy lan ah ñu bergerie par exemple yow man catégorie troisième catégorie donc produire pour euh, de euh, semences, mais damay produire pour de la viande Voilà, damay produire pour de la tabaski à partir de ce moment là yow peut-être ce mode d'élevage da fay outé ak ñeneen ñi han wala ko nga koy duggal ci ay kër ay affaire da ngay dem ci tol, han et bu woba dinañ mëna am ben label ah viande de de laadum. nous euh, ko mën nañu dem labelliser ko dem dem si Auchan yeeg feneen ñu ne viande de laadum. en ce moment là peut-être moins gën cher viande normale bi. ah parce que day nekk de la viande de qualité. mais voilà, il bi tam daf si génn. Ah, parce qu'actuellement le véritable problème qu'on a c'est un problème de vente. ah parce que ñi euh, ñi euh, ñi nga xam ni ñi de catégorie yëpp dañu bugg jaay même prix bi. même prix bi ji ku am laadum rek yaakaar nga ni jaay. un million alors que laadum yi dañoo wute dañoo bëri te wute. da nga ñëw si benn gétt sax di nga gis ñetti catégorie yu rangaloo foofu donc euh, loolu la ko d' accord merci ci précision yooyu yëpp je pense que léegi loolu leer na képp kuy yarati wala képp kuy jëndati laadum wala ngay bëgg a yar laadum je pense que di nga orienté wu ci race bi nga xam ne moom nga bëgg ndax prix yi tolloowul léegi ñu ñu euh, at yi euh, daaw def nañ Adam salon Adam mu mucc ayib vraiment mu am réussite totale macha allah mm-hmm. ñu leen ciy félicité ren ñi ngi xaar ak période pandémie bi est-ce que ñu ngi xaar ñu ngi xaar est-ce que dina am quatorzième édition est-ce que dina dina mëna a nekk. waaw en principe sax euh, Saladam bi on le fait tous les deux ans. Hmm. en principe benen bi inshallah 2022 euh, deux mille vingt la donc 2021, mille dafa waro nekk les préliminaires xam nga ñu suñu def Saladam. Hmm. euh naa wax Saladam bi c'est le seul salon au monde bi nga xamni bala muy am l'année précédente dañ koy consacrer aux sélections. donc dañuy def ay foires indi ay jury ñu sélectionner les meilleures bergeries nous sommes qualifiés voilà donc en principe si 2021 nous avons fait cette euh, sélection là maintenant nous, ici, nous ñu ngi nous nous ñu 2021 mm-hmm. euh, bien sûr euh, am sommes lool nous bi ici, fi pour que nous nous 2021 sélection Nous avons nous début 2021 mais peut-être deuxième semestre 2021 nous si on réussit à le faire si deuxième semestre 2021 eh, pourquoi pas maintenir ñu maintenir date 2022 pour le la quatorzième édition du Saladam Inch'Allah. allah léegi encore gàllankoor ngeen am covid bi par rapport à bergerie par rapport à Khari. est ce que vous ni des di recevoir des visites? yéen ngi koy recevoir ak norme jël pour cette Khari Wow, euh, covid bi depuis euh, bi euh, avez annoncé moi personnellement j'avais fait une communication euh, pour toutes les bergeries. Hein, en tant que leader, en tant que président de la fédération, euh, machallah euh, même si nous appliquons à 100 nous avons ñu appliqué nañ euh, au moins nous avons visiter, comme nous avons fait des visites là suñ ko les visites groupées nous évitons. par exemple ay groupe nit dem Bolo Yexi ay auto yu bari wala yéeg ben auto dem si bergerie di rangale bergerie lolu c'est le meilleur moyen euh, de de de propager le virus donc lolu ñu éviter ko lenen li aussi mooy su démé ba nga xamni visite mënul ñàkk ah nit soy dem visiter nga yem ci ben bergerie rek parce que so ñewé ci bergerie bi nga fofu démat ci ben joggé fofu foofu si benn euh, bu féké yow jot nga laal ci affaire bi forcément da nga koy yóbbu ci ñetti yépp wala bu féké ben am ko yi nga dem di nga ko fa yobbu

nga takk sa masque soy dugg tamit munoo dugg te takkuloo sa masque so dugg takkee sa masque nga raxasu ba pare là mun nga def visite si biir visite bi tamit euh, yow ak ki lay guidé ngeen bàyyi ngeen def distanciation bàyyi au moins distance u un mètre bi ah ba nga pare visiter ngeen dem surtout que maintenant on a la possibilité avec euh, de faire des visites virtuelles avec les l'internet ah donc pourquoi pas les les visites virtuelles nañ privilégier des visites virtuelles maintenant su yalla defee nak mbass bi jóge fi en ce moment là ñu delluwaat ci suñu habitude mhm.

presque mun na crédit nga jaay da nga jaay nit ki ñew avance la après dakh dakh yow hmm. donc lo ça pose problème vraiment on est on est vraiment impacté parce que tay ji bergerie bo am mu ngi yor bo gis mu ngi yor stock ba nga xamni mënu ko jaay hmm. alors que avant stock bobu daawu ñu ko won am mais tay ji quel que soit le niveau de ta bergerie da nga am ay problème pour vendre Et si jaayee tamit comme ni ma wax da problème pour def recouvrement. est-ce que le ministère de l'élevage vous a appuyé di appuyer ci wala non pour le moment nous, sommes éleveurs nous hmm. n'avons benn appui si si si ah, euh, c'est vrai que euh, quand je dis ñun éleveurs je parle de nous éleveurs intensifs ah, Euh, donc c'est vrai que au début euh, état a déployé quelques milliers de tonnes ñu avons ko ah bo franchement wa àll bi vraiment bénéficier nañu si. Mhm. mais ñun ñi nga xam dañu yor suñu bergerie yor ay ferme hein di def élevage intensif ah, pour le moment gisaguñu appui waaw. d'accord léegi ñu xol ñu visité box yi. ñu xool nga wax ñu yenn ak yenn xar ñoo fi nek ak jeune mali espoir ñi ngi fiy gis ay jeune mali yo xamné ñi ñaata mois la ñom waaw jeune mali yi xam nga soo xoolee fii box bi. Hmm. box jeune mâle kese la. ay jeune mâle rek ñoo fi nek hein hmm. ah, parce que man damay faral euh, di di compartimenter xari xari par compartiment la. xari yu bokk régime ñooy bokk d'accord mhm. xari yu bokk régime ñoy bokk nek yi ay jeunes mâles la yuy soog fer. ah ils ont 5 mois hein donc ñom ñoo euh, dañuy soxla euh, am croissance bu gaaw. hein donc ñu bol leen fi hein ah. soo box bi si topp ni so xolé fi par exemple. Si avez les filles par exemple. Mhm. Euh, il il y' a trois femelles y' a un mâle. un mâle donc euh, espace de lutte c'est-à-dire que femelles yi nga ont des dañu war elles sont les d'accord waaw donc nous sommes ñoom femmes, régime. d'accord ah, donc dañu fii nekk ak mâle bi mhm. ba ñu suñu voilà. léegi ñu gis ni box bi est waaw a amul Fi, ay xar yu namp ñoo fi nekk ak cage à agneau bële. fii lan mooy particularité am fii mun naa wax c' est une sorte de maternité C'est, est euh, xar yi suñu tëbooyee ba confirmé. ah ba une euh, gestation avancée dañ leen di dugal fii. ah parce que fii dañuy accélérer régime bi ah dañ leen di yokk dañ leen di def euh, defal régime à volonté ah pour que.

boobu tamit day soxla am régime bu baax donc femelles yooyu ñoom ñoo bokk régime moo tax fii yi nga xam ne dañu ëmb ba dix ak yi nga xam ne ñooy soog a jur di nàmpal ñoo fi nekk suñu fi nekkee nag ba seen doom fer ah bu boobaa ñu génneel fi soo xoolee gis nga lii lii nga gis ni cage a agneau la ah mel ne fii mboote yi dañu am waaw fii mboote yi dañu fi am accès ah yi dañ fi am accès mboote yi dañu dugg fii parce que nous sommes mën qui d'accord ah, donc dañuy dugg fii. Euh, suñu duggee fii euh, mën qui à part pour ne pas que seen euh, ñuy parce que nous bi aussi pour que mu mu faire parce qu'à partir d'un certain âge à partir de deux mois nous bi aliment bi de gëna soxla ko ah parce que parce que à partir de trois semaines le lait maternel diminuer en quantité et en qualité. qualité bi day wàññeeku quantité bi wàññeeku. donc période bobu dafa war a fekk mbote bi pour me compenser ce manque là mu commencé di lekk. période bobu day coïncider ak mbote bi momit it mu màgg am une certaine taille hein, bi nga xamni mom mew bobu boobu du ko doyati aliment bi mo koy doy. ah donc de telle sorte que su amé 3 mois mun nga ko feral sans problème parce que day fekk tàmm na aliment bi Lolo waral fi à partir de 15 jours rek da ngay gis mbote yi commencé di di di mos.

ah pour mâle bi tëb leen. suñu demee ba confirmer nag encore ñu génneewaat leen fii indiwaat yeneen femelle. d'accord.

soo mais néanmoins gis na toujours euh, boxe à agneau pour mbote yi mën a dugg foofu ñoom lekk à part ah donc fi tamit euh, non la demee bi c'est le géniteur et puis géniteur euh, bi mom ban ban ki la bok ci ban ligne wala ban bon bi c'est doomu grand ran la ah. actuellement mon mon remplacé grand ran ah donc mom c'est un fils de champion hein? mooy li ma la doon wax sànq c'est un géniteur bi nga xam dañ ko tann à cause de ses qualités génétiques ah euh, so xolé papom euh, euh, a été vice-champion euh, Saladam. Sa, maman aussi a été vice ah? ah, champion Saladam. Hein? yep, parents champion Saladam. Donc euh, logiquement il y a des critères génétiques qui nous permettent de d'espérer que mom champion. Inshallah. Mhm. Et puis il y a suñu tëbuwee ba confirmé lañ lañ leen fi dugal. parce que femelle su tëbuwee confirmé euh, en ce moment là peut-être euh, gestation bi su amee ay un mois voilà, wala ay vingt cinq jours boobu daanaka fœtus bi formé gul trop. genre tout le. rek la lu tuuti la. donc instant boobu euh, soxlul alimenté fœtus bi soxlagul trop lu bëri instant boobu nag la ñuy profité dégraisser femelle bi Hein? instant bi nga xam ne. pour wàññi euh, li muy lekk pour wàññi euh, graisse bi nekk si yaram bi. Ah, ah pour prévenir euh, une éventuelle toxémie de gestation bi nga xam ne toxémie bi nga xam ne day feebar la bi bi leen di jàpp suñu ëmbee ba 10. parce que femelle yi suñu ëmbee ba 10 en général bu fekkee dañu graisser trop femelle moom su graisser trop rek du nangooti lekk. donc bu fekkee dafa graisser trop tasanteeg doom bi développé wu. boobaa day wàññi lekkam. Alors que dombi instant bobu le gëna énergie ah, parce que dombi nek ci bir bi ah, gestation bi 150 jours 5 mois 150 jours soko diviser par 3 la lay jox petite tiers de 50 jours les deux premiers tiers 100 premiers jours euh fœtus bi tokku ndox rek la lu touti la alimentation mais par contre dernier tiers bi bobu fœtus bi da soxlo énergie donc période bobu da coïncider axyaa ji lekk bu baax a baax dafa war a donc coïncider axyaa ji am appétit nga jox ko une alimentation riche et équilibrée ah donc pour loolu nag moo tax ngay préparer femelle bi su tëbooyee rek ah ba confirmer nga dégraisser ko pour que troisième tiers bi mu coïncider ak femelle bi yaram bi amatul graisse bu bëri donc euh, fœtus bi du xëccoo biir bi ak graisse bi mu coïncider aussi ak femelle bi am appétit bu toll nii vraiment lu mu soxla si énergie yëpp dina ko mën a jox doomam est-ce que vous avez suivi de veto, Je vétérinaire boo ne tey. suivre sais pas chaque mois chaque deux mois ou chaque semaine comment ça se passe avec véto yi. Euh, on a un vétérinaire hein, euh, mhm. depuis la création. depuis la création de la bergerie on a un vétérinaire euh, je je profite de l'occasion pour vraiment le saluer le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la bergerie de Galoya et surtout tout ce qu'il a fait pour l'élevage au Sénégal parce que docteur Nyan, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour euh, l'émergence du Ladou. Ah, c'est quelqu'un qui travaille, je ne dis pas qu'il travaille gratuitement, <laughs> mais il fait beaucoup de social. Donc je tiens à vraiment lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait euh, pour l'élevage au sens large et pour particulièrement la bergerie euh, Galoya. Donc mon moi je suis vétérinaire. Euh, il vient ici en moyenne une fois par semaine. Et en cas d'urgence, su urgence dañ koy aussi mu ñëw wala yónnee assistant mu ñëw fi daal. d'accord beneen box ngi nii ñu xool box. waaw bon fii tamit soo leen c'est la c'est c'est c'est la même chose. que euh, que euh, que que que bi bi mu leen njëkkoon aussi genre maternité là. fii c'est les femmes gestantes avancées. ñoo fi nekk.

seen yaay dañuy bëgg seen doom tellement que dañ leen di këdd pour ñu pour ñu namp parfois loolu day damm seen feer faar yi wala parfois seen yaay yi tëdd seen kaw léeg-léeg ngay gis éleveur ah yeewu gis xaram dee du xam lan na naa non dafa yeewu rek dee ah wala naan crise cardiaque la wala loolu fekk nag yaay ji moo tëdd si kawam wala fekk yaay ji moo damm faar yi wala yu demee noonu parce que yaay ji day bëgg kut ko kut mu namp loolu nag pour am na benn période bi nga xam ni Euh, dafay soxla noppalu day soxla kalm moom kese day dem dugg dugg foofu dem tëdd foofu nelaw ba mandi soog a ñëw nàmp si mais su amul box à agneau boobu yaa a beaucoup de risques parce que y a des risques que yaay bi tëdd si kawam wala yaay ji këdd ko wala yeneen femelles yi mu nekkal sax mbëkk ko ok mu def benn box mel bi tamit benen champion la. waaw bi tamit euh, c'est un mal bi nga euh euh si Haj Mansour Mbodj la jóge ah. pour dire rek solidarité bi am si élevage bi. Mhm. loolu tam da koy rafetlu. Ah. Euh, mu doon suñu góor bu baax bi nga xam ni tey jii dum fu mu toll tey jii moom joué na ci lu bëree bëri bëri man suma élevage jouer na ci lu bëree bëri Haj Mansour Mbodj. góor gi Mansour Mbodj waaw pa bu baax la te wax fa dëgg yàlla liggéeyal na élevage bi liggéeyal na Adam tamit c'est le président d'honneur de l'Adam ah donc euh, euh, pour dire rek il a fait un beau geste par rapport à ce mal là bi su mal bi géniteur principal bi Danoué, grand ran daf ma woo mu ne fi géniteur bu baax a baax boo xam ne roi Bachir la ah euh, mu dinaa la ko abal nga liggéey si ba saa yoo pare nga delloo ma si donc mal boobu moo nekk nii pour dire que la solidarité entre éleveurs nous nous nous voilà donc c'est un mal nga c'est un fils de de roi Bachir mhm. roi Bachir donc Bachir là Bachir nak bon fille du juddoo Galoya euh, doomu Jéenaa la ak euh, Djibi ah, Bachir c'est le grand frère de de Boy voilà donc euh, à l'époque Lamine Diop laa ko joxoon bu tuddee ko suma dom Bachir suma <laughs>

Moi am si assistance bi mais yéen pourtant mun ngeen si liggéey fii dara de keneen ne ko yow le la joxee six fu comme ne nga doyal nga si tout bi la def mu ne man soo ma joxee six dina mille Je jënd benn laadum ma vous wax fa deug yalla mhm. loolu affaire bi touché ma mhm. en tant qu'éleveur parce que neewul ma dina dem jënd ko neewul dina dem def ambulant neewul euh, jënd ay fer defar lénen mais dafa ne dina jënd laadum donc en tant qu'éleveur éleveur laadum affaire bi daf mo touché daf touché euh, alors que euh, affaire immigration clandestine bi tamit touché auparavant si ça c'est un am réflexe ne damay intervenir sax ci émission bi pour vraiment remercier ko et puis encourager ko après par la suite je me suis dit non attends il faut que je fasse un geste et motax mo def ce geste là et je l'ai fait faire de pour moi donc def au nom de tous les éleveurs la preuve bi mu ko defee ba pare éleveurs yëpp ko rafetlu parce que ku si nekk gis nga si sa bopp ah, loolu rek pour wane ni ah, élevage bi ah rek preuve là que élevage laadum bi mun na régler le problème de l'emploi ah, parce que tey jii ñu bëri jeunes nous bëri à l'image de ce jeune là ñu bëri dañuy ne tey tey jii ku leen joxoon capital dañ lay ne damay damay euh, damay dugg si laadum bi ah donc liggéey la mun dem je peux me le permettre parce que suma dom la suma rakk la ah, de donner l'exemple de d'un jeune bi ñuy wax ngañ jéen ah, boy suma booy la ah papam dafa euh, en France à Marseille papam bugg ko euh, dimbali mu ñëw foofu papa man bugguma tukki man jënd leen ma laadum papam ñëw fii ñu ñëw toog waxtaan

xar boobu ñëpp xam nañ ko Adèle la tudd mais xar boobu barkel na barkel bi nga xam ni au bout de deux ans deux ans dong la liggéey si xar bi ah am na si euh, jaay yu mu njëkk jaay ah, ci la jaay Khouréchine ah ci la jaay un jeune mâle bi nga xam ni moom bi mu koy jaay deux ah, millions la moom moo jaay Khouréchine moo juddule Khouréchine ci la jaay Khouréchine deux millions boole si yeneen ñaari deux femelles ou trois dajale ba mu nekk huit millions mu ubbi si place pièce détachée mu ubbi si place pièce détachée imaginez-vous Khouréchine Bobo mu 2 millions sax ki 35 millions. actuellement record vente cher Sénégal d'une manière officielle. c'est ah, c'est 35 millions. Vous fi mais mais ah, parce que c'est palpable on peut le prouver. donc Bobo mu jël euh, magasin. Ah, mu ne vraiment moom bugg na dem di tukki di eh, pour di di di ñëw pour dem importer boppam parce que eh, depuis boobu ñii di importer rek ñoo ko doon jaay bagage mu ne moom dafa bugg charger boppam i ñëw ci la ñuy ñëw ñu ànd si foire yi ci la commencé di am ay visa di dem di tukki ñëw actuellement am na boutique am mu ngi dem di chargé di ñëw mu ngi léegi actuellement euh, euh, papam retraité na ñibbisi na moom mooy gérer papam gérer famille ah, donc loolu c'est un exemple ah waxuma ko pour siiwal ko mais je le dis pour un exemple pour prouver que si biir laadum bi hmm. mun nga si tekki parce que jeunes yi di dem à l'immigration du liggéey moo leen yóbbu de ñu di dem liggéey immigration liggéey yóbbul leen. parce que ñenn ñi dañ fiy bàyyi ay salaire yu 200000 jël gaal yi. ñenn ñi dañ fiy bàyyi liggéey euh, wala leneen dem jël gaal yi. ñenn ñi dañuy nekk ay ambi am fi liggéey di di di mën a joxe dépense mais dañ fay dem jël gaal yi parce que ñoom li leen di yóbbu mooy tekki. ça fait mm-hmm. ah ut liggéey ak ut alal ça ñoom dañu bëgg a tekki c'est-à-dire am alal ju bëri. loolu mooy tax ñuy braver maire yi di dem. mais bu doon liggéey kese kese dañ ko fiy fekk. Ah, mais lolo tamit boudé téki tamit parce que à l'exemple de ce jeune que je viens de citer. exemple ay commerçants yu yi nga dem ba nga doxatul ñu dugg leen redresser. Mhm. donc chance ben xar rek nga millions wala nga millions. Ah, donc euh, départ ah, donc pour dire que vraiment euh, lancer un appel mhm. à l'état du Sénégal pour que nous ñu

li may wax mun nañ ko vérifier il a fallu 10 ans 10 ans après laay soog a xool ne voilà élevage bi commencé commencé na rentable mm. c'est-à-dire tendance bi inversé nañ ko léegi au moins xar yi mun nañ yor seen bopp mais toog naa 10 ans yi nga xam may élevé xar yi yoruñu seen bopp damay liggéey feneen di di koy dugal te lu ma doon dugal du ko gis mais 10 ans après ci la commencé gis tendance bi inversé wu mais man fi ma euh, euh, euh éleveur yi légui mën nañ fa baña a jaar parce que il y avait beaucoup d'inconnus temps bobu ñun bi ñuy dugg temps boobu bëriwul ni euh éleveur euh, engouement bi amul woon. bi mm-hmm. mm-hmm. expérience bi aussi desoon na. mais légui expérience bi amna légui léegi engouement bi amna marché baa ngi donc ku dugg ah, normalement so so so so so ko défé d'une manière sérieuse et professionnelle ah, normalement au bout de 2 ans 3 ans war nga commencer gis rentabilité rentabiliser. d'accord légui vraiment ñu lay remercier ci dalal buñu dalal tay ci bergerie Galoya mm. am nañ mbégte découvrir xar yi découvrir bergerie bi mm-hmm. aussi ak personnel bi aussi tamit pour voir ni la lool aussi création d'emploi la mm-hmm. ñu ngi lay remercier ci lool di wax la nga wax sa dernier mot ñu tej émission bi waaw dernier mot bi euh, c'est encore une fois lancer un appel euh, à l'État du Sénégal plus précisément euh, au chef de l'État bi nga xamni xamna ni bëgg na élevage bëgg na jur parce que euh, ñuy wax pédagogie par l'exemple mon loolu la commencé parce que avons créé créer ferme pour nous, nous avons créé ku créer ferme moom créer emploi wane nga yoon bi te aussi euh, baaxee nañu journée mémorable la journée nationale de l'élevage Nous mm-hmm. nga xam ni audience la bu muy jox Sénégal euh, mais nous koy fàttali ni élevage laadum euh, c'est un créneau vraiment porteur euh, c'est un créneau qui nga xam ni emploi yu des jeunes donc euh, nous sommes gëstu éleveur la demi parce que aujourd'hui, nous ñun ñu ngi def ay ñu pour voir ñaata bergerie bergeries, fi ici ci Sénégal ñaata éleveurs ñoo ci et tout ça bientôt allons ko comparer. mais euh, c'est des dizaines de milliers hein, de jeunes ah ñooy liggéey di l'élevage élevage la d'oumbi. multiplier par 100 ou par 1000 même ah, étant donné que les sénégalais sont gis dafa ont il a envie d'élever Et si jeunes bi ce bëgg ils ba donc le rek le euh, président si ñu nit nuñ ko jappalé ci emploi yi. donc li mo nekkoon seen émission découverte ñu ñëwoon découvrir bergerie Galoya di remercier bu baax grand aboukan ci dalal bi ñu dalaloon fi donc ñu leni dox jig dajé ba benen yoon incha allah jërëjëf.